ban euh, selaan bii nii nii fii nii. waaw maa maa ngi lay neefee. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. Ah, hectare bi yëpp dañ ko mën a doxo. 14000 créé ñun eh, man da ngeen may topp damaa bëgg lu leer rek de. dil ma kaar kat waaye. gis nga courant bu bëggee courant day difficile day bëgg a dee day facile maa ko day difficile. day facile bay bëgg a dee xool nañ ko. mën na pompe mën na lii. lu TV. seen YouTube sénégalaise. da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa lu xew TV ñoo ngi leen di ziar du bare bare bare di kontaan ci yéen bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen. di rafetlu seen taxawaay ci réew mi di rafetlu seen réaction yi nga xamante ne yéen koy def ci surtout wàllum homosexuel mi ñu gis na wàllum homosexuel léegi mu ngi bëgg am doole ci biir Sénégal te wax dëgg yàlla waruñu ko mën a seetaan bon ngeen ci def ay réaction moom lu ma ci seetaan gis ko rafetlu ko kontaan ci bu baax a baax bugg ci participer xam naa ne incha allah dinañ ci ñëw ak yéen ci kàttanul yàlla. waaw sama première question mooy wàllum homosexuel mi li nga xamante ne moom laa ci ak sama xalaat li nga xamante ne fa la toll ma war fa waxee mooy ne wàllum homosexuel dama yaakaar ne boo gisee mu ngay am doole pour man ñi nga xamante ne ñoo jiite réew mi ñun ñoo pour man sama xalaat quoi dama yaakaar ne ñi nga xamante ne ñooy njiitu réew ñoo ñi nga xamante ne ñoo dooleel wàllu homosexuel mais tey bu leen neexoon tey homosexuel du fi am muy wàllum góor jigéen képp koo xamante ne yaa ngi koy def ñu xam ko ci yow yoon war na la jàpp jaarale la ci yoon mais ñoom xam nañ ko teg dañ ci seen bët ba pare dëgg ci seen tànk noppi pour man sama gis-gis sëriñ si ñooy nekk di wax ak boroom xam-xamee wax ji nag pour man day bari rek mais après gëw ma ne mu gaaw a réglé ci sama xalaat li ma yaakaar ne moo ko war a mën a mooy kilifa diine ñu def ab marche def ab ñaxtu parce que nit nit rek la mën a doon quoi fii Sénégal dëkku jullit la Sénégal réewum jullit la am na ñoo xamante ne waruñu ko seetaan mu di fi am di nasaxal suñu réew di nasaxal suñu ngëm-ngëm di nasaxal suñu diine parce que baaxul day dem ba nga xamante ne nii euh, nit ñi dañ koy def ba pare yaakaar ne lu dagan la fekk baaxul parce que comme ni ko Iran daw waxee nee nañ képp koo xamante ne da nga def l'islam dafa la raylu état bi bu man sama gis-gis bu fekkee état bi amul nen nu mu ci réagir population bi am nañ ci réagir ke ku ñu ko gis nga koy def ñu ray la man sama xalaat bu gàttate ñu ray la waaw kese man loolu laa ci gis quoi parce que lii naay sul quoi du yoon dañuy yàq daru Sénégal parce que tey da nga génn ci biti sax nga nekk à l'extérieur nekk beneen pays sax ngay am looy ñooti na pays l'islam ñu ne la non saa yéen kay góor jigéen yaa ngi fa fees dal ngeen taxaw fi naan petit patata comprendre nga. sama gis-gis na sëriñ si comme ay Tiwaawoon Touba Njaasaan Ñaseen kenn ku nekk na ànd ak say taalibe ngeen génn ñu ni tey dañuy manifester góor jigéen du fi am président de la république bu munul jàpp góor jigéen yi denc leen ci katu bi wala mu am nu mu def ak ñoom ñun ñi nga xamante ne ñooy sëriñ si ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ñun duñu seetaan loolu du fi am parce que yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko diina bëggu ko aada bëggu ko comme que demee na noonu ñii dañ leen di jàpp bu état waxul ñoom ñu wax ci ñoo am nu ñu réagir quoi pour man sama gis-gis bu boobaa état dina ci jël ay mesures mesures mais bu fekkee ne ñu ngi toog na pat pataaral état du ci gaaw a jël ay mesures de nañu wax ji baax na dëgg la gaa ñu ngi wax imaam yaa ngi wax oustaz yaa ngi wax mais nañu am réaction boo xamante ne moom la ñuy def ñëwee ko ci wàllu marche carrément ñu taxawee ko man pour man na borom xam-xam yëpp nañ génn ànd ak seen i taalibe fépp fu waay nekk nga am ay taalibe mu takku nañu programme ñu def marche na góor jigéen dafay amee dañ koy arrêté billaahi wallaahi day taxaw parce que nitu nguur ñemul nitu diine waaw yaa ngi dégg bu ñuy seetaan waaye xaalis dafa néew ci poos yi fes si xol yi ba nga xamante ne da ngay bëgg a wax sax ñu sëqal la xaalis nga noppi kese surtout waaw maa ngi nuyu ñëpp. di kondaan si ñëpp di ñaaral ñëpp jàmm waaw di rafetlu lu xew TV seen émission yi nga xamante ne yéen a koy def bu baax jërë ngeen jëf wasalaam. moo dax président boobu doon ñu doon wax yaaya jàmme donte dictateur la maa ngi rafetlu bu baax a baax réaction bi nga xamante ne defoon na ko ci wàllum góor jigéen ñi bi ko bëggee amal ci réewam rafetlu woon naa ko parce que dafa noonu képp koo xamante ne yaa ngi koy def dañ lay rey comme xaj. bu ko gisee daf lay rey comme xaaj mais léegi alors lu tax ñun sénégalais ñoo nga xamante ne Gàmbi gu ndaw rek seen président bi interdit loolu mën a régler loolu biir Gàmbi ba amu ñu koy seetaan mu fi am ma kenn ko dul Macky Sall ah, man Macky Sall laa parce que tey képp koo xamante ne defkati problème yi crime yi muy accusation de vol accusation de crime viol kuñ ne laam-laamee def lii ak lee dañ lay jàpp dugal la ci kaso ba pare enquête la mais lu tax homosexuels yi gars yi jigéen ñu leen di seetaan ñu nekk ci réew mi du lëmbe di def lu leen neex am doole ko ci waxal sax boobu moytuwul yow yoon moo lay jëw jàpp police lay jël si wala gendarmerie te moo ne ay citoyen lañ ko réew mi nañ jox sénégalais yi seen àq ak seen yelleef nañ jox nit ñi seen àq ak seen yelleef Macky Sall wàllum góor jigéen mi am na ci part de responsabilité bu rëy a rëy su fekkente ne jullit la moom su fekkente ne mu ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah su fekkente ne moom gëm na li nga xamante ne moom la doon na ci réagir na ci wax ni ñi dëgg na am décret bu mu ci def na na ci na na wax quoi pour man sama gis-gis quoi parce que man dëgg moom Macky Sall mu réagir ci wàllum góor jigéen ñi te boo gisee muy am fii lépp ci moom la jaari quoi comprendre nga franchement war nañu xoolaat suñu bopp xoolaat ki ñu doon te ñu delloo suñu xel ci yàlla xam na ci yàlla lañ jógee te ci yàlla la ñuy dellu surtout ñu nga xamante ne ñoo nekk ci bopp réew mi nañ bàyyi xel comme ni ko Oustaz Samba Diallo waxee yaa ngi dégg nañu delloo suñu xel ci yàlla de surtout politiciens yi sëriñ si bu leen xaalis jaral ngeen di jaay seen diina wala di jaay seen ngor sëriñ si nañ ci am taxawaay bu rafet taxawaay bu dëgër bu njàmbaarte sëriñ si ak seen taalibi billahi wallahi tallahi bu ñu génnee taxaw na dañuy marché góor jigéen dañ koy dakkal fii ci suñum réew fii ci askanu suñu gaal fii billahi dina dakk pour man quoi sama gis-gis sëriñ si yëpp nag amul murit bi amul xaadir bi amul layen bi amul njaasaan bi amul tout ça na ñëpp bokk benn bëgg-bëgg bokk benn kàddu bokk benn yéene mooy lan góor jigéen du am ci Sénégal parce que dañ ne ñu ne Sénégal du pays jullit pays laïc la te quatre-vingt-quinze pour cent yëpp nekk ay ay musulman cinq pour cent yi nekk chrétien mais léegi ñu bëgg seetaan lool muy law ci réew mi di dem ah waa baax na salaamun mais man de moom moom wax dëgg yàlla man ak sama bopp rafet lu ma ko naaj lu mu ko du yoon góor ak góor jàkkaarloo di sëy fi nga xamante ne fa ngay puubee puub puub boo bëggee dem kama nga jonkan puub raxas ba set ngay jël sa secret di ko fa def dañu xoolaat loolu waaye saa yi dañu xoolaat loolu bu baax a baax waaw man moom président laay waxal Macky Sall amul benn réaction bu ma gis bu mu def ci. internet bi yëpp man maa ngi siiful képp ku ciy wax rek maa ngi lay bàyyi xel mais gisuma président am lan lu mu ci réagir mu ngi ci dëgg tànkam homosexuels yi góor jigéen ñi ak lesbiennes nii képp koo xamante ne gis nañ ne yaa ngi koy doxal nañ la jàpp yóbbu la ci yoon mais loolu amu fi l'islam buggu ko daf ko araamal te ñun l'islam la ñuy dund politiciens yi képp ku ci jàq da ngay daw dem ci sëriñ mu ñaanal képp ku ci am problème wala nga am jafe-jafe da daw dem ci sëriñ olof njaay nee na ku ñëpp tufli dangay ngay tooy olof njaay nee na sàng lu malaan jot gis nga ñi ñuy tuumaal ci mbirum góor jigéen mi ay Wally Seck Ouzin Keita amul lu ñuy laam-laami képp koo xamante ne yaa ngi leen di défendre da ngay lekk te ba défendre nit na nga ko défendre ci dëgg mais kullu xaq walaw kaanu muraan tontu da ngay dee waxal dëgg dañ lay rey sax laa wax de l'islam yàlla daf ko indi l'islam mu ni fekkee sax boo waxee dëgg ji ñu ray la mu ni nga wax ko ñu ray la moom nangu na loolu suñu borom nangu na loolu nee na boo ko waxee ñu moom nangu ba pare mu del na laatu xaari bii lisaanaka li tax jala képp koo xamante ne yaa ngay wax li ngay wax na ko bàyyi xel mu doon loo xamante ne dalay wet te wóor leer laatu xaari bii lisaanaka li tax jala inna alayna jamaaw wa quraanuhu surtout bu fekkee yaa ngi wax ci mbirum alquran na ci nit ñi bàyyi xel bu baax waaye sama gaay mbirum homosexuel yi mu ngi am doole de ci sunu gaal te kii nga xamante ne mooy Wally Seck mooy ki nga xamante ne mooy ki koy pasaar xale bu ndaw la bi mu juddoo léegi yàggul bëgg a ñëw te nit ñi nekk fi mbër moo xamante ne yow kenn mënu ci yow daal loolu mënul pare xamoo li ma si jaaxal moom day wane ne moom dafa am wasila day wane ne moom dafa am wasila am na ci kër gu mu jokk mais ci nga xamante ne foofu la jokk ñu ñoo war a taxaw wax ak moom donte gis nañ mbir mi lii kenn laam-laameetu ko kenn laam-laameetu ko sama gaay